mooy xam-xam bi gën a xóot ci xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jàppale jullit bi ba day mujj ci mboolem ay jëfam lu muy def ak lu muy bàyyi da cay xalaataale yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ca na ko sharia sant mu xalaate ko noona mën naa dem ba day mel ne day dund dund boo xam ne lam cay yëg day mel ne kenn la ci ñi nga xam ne dañ doon dund sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñooñu mu seetlu ci moom xaw a am tuuti njàqare moom Abu Bakar mu ne ko laa taxzan inna allaha maana bul tiit yàlla lan àndal waaw maaya boobu nag mooy loo xam ne fu waay toll fa ne di ko soxla inna allaha maana jooji mooy delsi ci ne in tansurullah yansurkum soo ko nekkalee mu nekkal la yonent dafa am yaqin joo xam ne kuy yëngu ci diine ku mu mën a doon war nga caa amub cër waxuma ne melal ne yonent waaye am cib cër mooy mu wóor la ne ginnaaw wóor la ne ci siraatul mustaqim nga nekk yàlla mooy aar li nga nekk yonent ba sañ na caa fasaale ne day aarale jëmmam ndax aar jëmmam ci la aar diine ji nekk keneen ko mën a doon nag yàlla mën naa aar diineem te doo aar sa jëmm nag jëmm ji mën naa dem waaye diine ji des faral wa man ahsanu qawlan mimman daa mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد المصطفى الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki gannaaw bi ñu sante yàlla borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom rek a yoo jaamu jil li ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam yu tedd ya ak ña leen topp ci seen njub ba keroog bay yowmal qiyam di taxaw ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam te mooy yàlla jàmm yàlla ak yërmandeem ak li nga xam ne moo di ak musalam wàcc ñun ñépp di sant yàlla bu baax di am mbégte ci may gi ñu borom gi may tey ñu dalal suñu cheikh docteur Mouhamad Ahmad Lo fii ci Bambey muy Bambey ville ci jàkkay Salah Al Harraz bi nga xam ne moom macha allah bokk moom moo taxawee financement jàkka ji nekk suñu gannaaw moom ak kii way juram yàlla neen yàlla defal tawfiq te ñu bokk ci lajnatul birr yàlla may leen ñoom ñëpp tawfiq ñu am mbégte lool ci ànd ak suñu cheikh ci benn conférence boo xam ne niñ ko dippee mooy suma juumul maarifatu rasuli salallahu alayhi wa sallam xam yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom mooy kan te docteur Mohammad duñ guddal ci wax ci moom li ñuy wax ci moom daal mooy boroom xam-xam la boo xamante ne mu ngi liggéey ci saaxa bi empreinte am feeñ na ci béréb yu bari yal na ko yàlla yokk ixlaas amiin amiin guddal fanam aar ko ci lépp loo xamante ne musiba la ndax kat mooy su ma bëggul mu baalaxa ci li ma jàpp walaaw xasibu sagu daawa bi la kon yal nañu ko suñu boroom aaral fu yàq yëgul yu ñaan mbokk yi nga xamante ne ñoo teew ñépp nag yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy déglu kàddu xam la muy wundu te maanaam topp ko balaa boobu nag am na benn maanaam kàddu boo xam ne moom la ñuy njëkkee te mooy kàddu borom bi ñu jox suñu benn doom li nga xam ne mu ngay jànge ci daara ji mu daal di ñuy tartiilal shay'an min alquran alkarim su ko defee ñu dox suñu ñu jox suñu cheikh bi yàlla na ko yàlla yombalal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما jazakallah xeyran jazakumullah xeyran kon docteur tafaddal mashkuran mahjuran
الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الهداية وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغواية والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من خير ما بذلت فيه الأوقات وشغلت به الساعات من أوجب الواجبات معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته وأخلاقه وهديه وسنته وأيامه إلى جوانب متعددة من شخصيته وأسلوبه في حياته ومعيشته ودعوته في السلم والحرب ثم إن هذه المعرفة تجعل المسلم كأنه يعيش مع نبيه في كل تصرفاته وربما تخيل أنه واحد من أولئك الكرام البررة الذين قامت على عواتقهم صروح المجد والنخوة والبطولة mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
salaam noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di am mbégte ci dajawaat ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Bambey ak li ko wër ak mboolem ñu fi teew fu ñu mën di jóge eh, rawatina béréb bii nga xam ne yàgg nañoo xemmem dellusiwaat fi ay yooni yooni yoon depuis bi sunu borom tabaraka wa taala dogalee ñu ubbi woon jàkka ji te ñu fekke woon ko waaye rek waxtu yi ni mu xate ak yitte yi mooy tax lu gën a bari ci lu nit di yéene léeg-léeg mu jafe ko waaye alhamdulillah ginnaaw sunu borom tabaraka wa taala defal nañu xéewalug dellusiwaat daje ak yéen kon ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi fi teew ak kilifa yi kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu nuyoo bu tolloog maqaama bala sa borom tabaraka wa taala jox waaw damay bañ mu muur kanam su ko defee eh, gannaaw nuyoo boobu ñu xam ne tey ab jataay moonu boole jataayu waxtaane lu jëm ci suñ diine waaye nag tomb bu am solo bu ràññiku itam nag ci suñ diine mu di xam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy kan loolu nag buñ ko waxee amaana nit mën naa yéemu lu tax tomb bu mel noonu nit di ko def ab tomb di ci waxtaan ak aw nit ndax kenn ku nekk xam na ne jullit buy dugg ci lislaam bu nekk li ngay njëkk a wax gannaaw boo seedee ne yàlla moom rekk mooy ki yeyoo ñi di ko jaamu la nga cay teg mooy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moomee mooy ndawam su fekkee jullit bi loolu lay duggee ci lislaam ah kon de xanaa jullit bu nekk kon war naa xam ab yonentam kon jullit bu nekk dafay mel ne ginnaaw la muy duggee ci lislaam lam bokk na ca la muy jëkk a wax mooy seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndawul boroomam mu di ab yonentam itam mu nangu ko bu wér kon day mel ne jullit yépp kon waroon nañoo xam seenub yonent mooy kan waaye nag buñ xoolee dañuy gis ne bunt boobu dafa mel ne dafa manqué maanaam xam gi na mu waroon a demee des na rawatina ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a xamal muy ndaw ñi e dem na ba ndaw ñi tey kon danaa dellusiwaat ci li ma waxoon léegi alhamdulilah moo di ne su nit ki di waxtaaneek ay jullit ñuy jàngat ngir bëgg a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kan nit mën naa laaj ne ma ndax loolu aajo woon nañ ko ci yonent boo xam ne li ñu jàpp mooy jullit yépp war nañ koo xam waxu kay loola mooy li waroon a am waaye nag loola dafa manqué lool ndax xam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa yemul ci xam aw turam yemul ci xam kan mooy waajuram ak fan la dëkkoon waaye daa am beneen xam-xam nag bu gën a xóot boobu yooyu nag ci xam-xam yi lañ bokk waaye danoo dem ba àgg ci jamono joo xam ne ndaw ñi tey dafa am yu leen muur ba xamatuñ seen bopp bari na tey ndaw luy dox yorum xelam di jàng di dugg ak a génn xàmmee mën a lijjanti mbirum àddunaam boo ko doon laaj tey yonentam bi nga xam ne moom lay wax ne moom la gëm lam xam ci moom nga gam-gamle ko li ñu tuddee comparé nga comparé ko digganteem ak mbërum làmb wala koo xam ne kuy football la wala kuy fo di caaxaan ak musique ak a fecc lu bari ci ndaw ñi tey xam nañ ci ñooñu ay détails yoo xam ne xamatuñ ko ci seenub yonent aw xeet nag bu demee ba seeni ndaw lu bari ci ñoom tollu foofu kon jaadu nañu dugalaat ci biir waxtaan yi ñuy waxtaane suñ bokkee toog fàttalente waat suñ yonent boobu ba xam mooy kan ak nan lañ ko war a jàppe kon loolu jàpp naa ne ci suñ jamono yi bokk na ci yi gën a am solo ci loo xam ne nit ki dana ci dépensé waxtoom bokk na ci yi gën a war ci jullit bi mu xam yonente boobu lan moo doon ay melokaanam lan moo doon ay jikkoom lan moo doon ay santaaneem fanam yim fi am ci lu mu ko jeexal ci lu mu nekkoon personnalité bu am solo boobu muy jëmm ju màgg jooju di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan dundee maanaam méthodologie bi mu yoroon ci ak dundam ak ci booteem sax ci lislaam moo xam jàmm xew moo xam safaan ba la xam-xam bu mel noonu mooy xam-xam bi gën a xóot ci xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jàppale jullit bi ba day mujj ci mboolem ay jëfam lu muy def ak lu muy bàyyi da cay xalaataale yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ca na ko sharia sant mu xalaate ko noona mën naa dem ba day mel ne day dund dund boo xam ne lam cay yëg day mel ne kenn la ci ñi nga xam ne dañ doon dund sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñooña luñ daan bëgg a def lu mu mën a doon te xamuñu lu mu doon dañuy laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nii la bu ne defal ñu def bu ne bàyyil ñu bàyyi kii dund ak yonent bi ci suñ jamono tey noona lay def moo di lu muy bëgg a yëkkati moo xam ci liggéeyam la moo xam ci dundinu biir këram la moo xam ci boolem ay jëfam balaa def dara faaw mu dellusiwaat ci yonent bi la mu doon dund ba xam noona laam déet su dee noona mu def su dul noona mu bàyyi kon kooka day dem ba day dund sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mooy dund ak moom ci biir loolu jàng gi ñuy jàng dundug yonent bi ak siiraam mën nañoo dem ba xame ci li ñu tudd ay point faible yi gaar jullit yi mooy dem ba mu yàgg néew doole gaar leen gu àgg ci lool suñ xoolee li ñuy dund ak la yonent ba ak i saxaabaam dundoon danañ daal di mën a xam néew doole googu lan moo ko indi wala bu fekkee ne néew doole gi am na ba noppi lan moo ko war a dindi comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam lu mel noonu da leen a gaaroon am nañ def loola dañ loolu kon war nañ ko jàngat ngir xam loola lu mu doon ndax noonu itam li nu gaar mën a dañ dana daal di mën a xamit nan lay jëflanteeg mboolem yii xew xew-xewi jamono lu xew lu nekk rek mu xam lan mooy la ko ca war bu dee ay wax mu wax ko bu dee ay jëf mu jëf ko loolu ku xamul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak noonu daan def ak xew-xewam kooka doo mën a xam nooy def da nga dem ba gàtt taxaw ci diggante boo xam ne da nga demen de fii xamatuma lu fi sama diine wax fekk la ko war mooy da ngaa xamul sa yonent ci jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak i jaar-jaaram ci la jullit yi dem ba seen xel mën a dalaat mën a delsiwaat ñu xam ne lislaam luñ ko sonal sonal ak lu mu metti metti loolu du tax mu raaf ndax metti metti boo jaar bu ne wala coono boo jaar bu ne yonente bi ak i saxaabaam jaaroon nañ ci lu ko gën a metti te taxul lislaam raaf ci loolu la ñuy am kóolute gu leen de woon ne ñoom ñii yàlla dana leen taxaw dana leen dimbali su fekkee ne def nañ la leen war ci xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax borom bi tabaraka wa taala kat moo ne in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum su fekkee ne def ngeen li leen war seen diggante ak seen borom moom it dana def la ko war mu tegal ko boppam mu war leen mu war leen koo jàppale moom it ci wàllu ndimbal maanaam su ngeen jaamoo yàlla mu dimbali leen loolu mooy gàttal borom bi ma waxaat ne inna la nansuru rusulana walladina amanu fi lxayaati dunia wa yowma yaqumu l ashhad nee na man mi yebal samay yonent ay nit topp leen di jaamu yàlla man mii maa gàddu dimbali leen ci àdduna ak ëllëg ca àlaxira wala yansuranna allaha man yansuru inna allaha la qawiyun aziz borom bi tabaraka wa taala nee na képp ku taxawal yàlla ci diineem ji def ca la nga ca man ba fa mu yem borom bi tabaraka wa taala moo lay jàppale ci say mbir adduna ak àllaaxira kon tomb bii danoo fas yéene waxtaane yonent boobu yi mooy kan maanaam dëgg-dëggam mooy mooy lan aw askanam ak lenn ci ay turam danañ ci romb ay- ay melokaanam ay melokaanam ci wàllu jikko ba ci wàllu bind sax du wàññi dara ñu laal ci dara su ko defee yi ko yàlla jagleel itam tam waxal ko boppam ñu tudd ca dara loolay tomb bu njëkk bi tomb ñaareel bi nag mooy ay xam-xam yi nga xam ne moom daf koo yeyoo askan bi muy bor buñ ko yoreel nga xam ne mënuñoo baax wala ñu jub te fayuñu bor boobu tomb bu njëkk bi su fekkee dañoo bëgg a xamle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li ñu tuddee définition suñ ko bëggee def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku yàlla moo ko defal boppam nee na muhammadun rasulullah loolu mu jeex tàkk moom daal muhammad la tudd waaye yonentu bi yàlla la kon wax ju gudd gàtt mooy kooka wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekkul lu dul di yonentu bi yàlla kon suñ ko doon définir ak saraaba lu mu yaatu yaatu yaatu dañuy del siwaat rek ca mujj ga ne kooka daal yonentu bi yàlla loolu nag dana gën a leer ci kanam tuuti aw askanam nag moom sunu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw dàkkentelam mooy abul qaasim suñ nee abul qaasim kooku mooy dàkkental yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dàkkental woowu nag am na lenn ci ay xadis yu ñëw yoo xam ne dañuy tere keneen mu dàkkentale boppam abul qaasim waaye am yeneeni riwaaya yuy wane ne loola dagan na te boroom xam-xam yu bare bare bare ci taarixul islaam dàkkentale seen bopp abul qaasim kon ñi ne tere ga fa mu ko yemale woon mooy ca saxaaba ya ndax day bañ keneen dàkkentaloo dàkkental woo xam ne day dundandoog moom dàkkentalee di jaxasoo mën nay wax ak nit fële mu ne ko yow abul qaasim nangam nangam nangam wax ak moom wax ju ñaaw ñu defe ne kooku yonent bi lay wax mu ne kon loolu moo taxoon mu tere ko waaye tere wuñ ko mutlaqan kon nga dàkkantale sa bopp abul qaasim léegi loolu wàññiwul dara loolu moo tax borom xam-xam yu bare bare bari booy jàng seen histoire ñu mel ne tabaraani ñu mel ne ñeneen ak ñeneen abul qaasim lañ dàkkantale kon turam mooy muhammad baayam moo di abdullah abdullahi la baayam tudd abdullahi moomu abdul muttalib moo ko jur abdul muttalib moomu haashim moo ko jur haashim ku ñuy wax abdu manaaf moo ko jur abdu manaaf ku ñuy wax qusay moo ko jur qusay ku ñuy wax kilaab moo ko jur kilaab ku ñuy wax murra moo ko jur murra ku ñuy wax kaab moo ko jur kaab moomee ku ñuy wax lu'ay moo ko jur kooka ku ñuy wax xaalib jur ko kooka ku ñuy wax fihr jur ko kooka ku ñuy wax abdul malik jur ko kooka ku ñuy wax nadr jur ko kooka ku ñuy wax kinaana jur ko kooka ku ñuy wax xuzayma jur ko kooka ku ñuy wax mudrika jur ko kooka itam ku ñuy wax ilyas jur ko kooka ku ñuy wax mudar jur ko kooka ku ñuy wax Nizar jur ko kooka ku ñuy wax Maad jur ko kooka ku ñuy wax Adnaan jur ko li tàmbalee ci Abdullahi mii ma tudd ba ci Adnaan moom yi boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ñooñu ñooy maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak juyoo amu ci la tàmbalee Adnaan jëm kaw nag ak juyoo da caa am ñii ne Adnaan kee ko jur ñii ne déedéet kee ko jur waaye ala kulli xaal am na meneen mbir moo xam ne dëppoo nañ ci it. moo di ne Adnaan moom yi ci sëti Ismaayila doomi Ibrahim ci la bokk maanaam Ibrahim alayhi salaam yonent ba ngeen xam Adnaan ci ay sëtam la bokk kon Ibrahim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci boo toppee askan bi askanam woowu nag askan wu wu yi gën a tedd ci la bokk loolu moo tax dana ñëw ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax foofu amma ay turam nag ñëw na ci xadisu Jubayr ibnu Mut'im boo xam ne Buxaari moo ko génne mu ne lii xamsatu asmaa ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana almaaxi alladi yamxu allahu bihi alkufr wa ana alxaashir alladi yaxshuru yuxsharu annaasu ala qadamaya wa ana alcaaqib alladi laysa bacdahu axad kooku mooy riwaaye Buxaari nee na am na juróomi tur juróomi tur yooyu mooy Muhammad ak Ahmad ak almaaxi ak alxaashir ak alcaaqib nee na juróomi tur yooyu benn bu ci nekk tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la defe naa ne yi ci gën a siiw mooy Muhammad ak Ahmad néew na nga dégg ku tudde doomam aaqib wala mu tudde ko xaashir te loolu ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk juróom yooyu nag dafa wax ne yooyu mooy yi gën a fés waaye tënkuñu ko foofu loolu moo tax ci riwaaya bi ñëw ci saxiixu muslim ci xadiisu abu muusa al ashari nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daananu limal ay turam muy wax ne man maay muhammad maay ahmad maay almuqaffa almuqaffa buñ ko waxee liñ koy firee mooy ku ñuy roy koo xam ne dañ koy roy wal xaashir moom yonente bee ko firil boppam sànq nee na mooy koo xam ne ëllëg nit ñi buñ leen dajalee fi kanamam liñ leen di indi buñ dekkee maanaam dañuy teew ci kanamam moom aw xeetam mu teg ce ne wa nabiyu rahma wa nabiyu tawba kon yonentub njéggal di yonentub yërmande itam waaye nag boo xoolee yooyu yëpp li ñu tuddee dàkkental wala laqab ci lay dellu mooy nit ki day ami turam ba àggal ñu wutal ko ay dàkkental yoo xam ne xam nga de boo nee yonentub yërmande ne yonentub njéggalaate maanaam njéggal ko suñu borom wala ki nga xam ne ki nga xam ne moom la ñuy ràmm nit ñëpp moom ki nga xam ne mooy royukaay bi ki nga xam ne moom la yàlla di far bàkkaar yi ci sababam yooyu ay melokaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye tur ya dëgg-dëgg nag la cay cosaan mooy Muhammad ak Ahmad lu bari nag nit ñi dañuy wutal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay tur yoo xam ne duñ ay turam li ko andi it mooy am lënt mu leen gaar ci alxuraan ndax lu mel ni yaasiin foofu ak taaha am na nit ñoo xam ne jàpp nañ ne taaha ak yaasin ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk te bokku ci yaasin moog alif laam miim ñooyam taaha ak alif laam miim ñooyam mooy saar yi nga xam ne dañ koy ubbee ay xaraf ba noppi door a tàmbali nag di wax kon ba mu ne yaasin daal di ne wal quraani alxakim foofa la mbir ma tàmbalee fa la wax ja tàmbalee ba mu ne taaha maanaam ñaari xaraf yi jàll ma anzalna alayka alquran foofu la wax ci tàmbalee comme ne am ne woon alif laam miim door a tàmbali na dalika alkitaabu la rayba fii nit ñi nag dañoo gis ne ñi njuumte loolu daal biñ gisee yaasin ja gis la ca tegu di ma anzalna alayka alqurana wàccewuma ci yow yaasin wal quran alxakim ak fële mu ne taaha ma anzalna alayka alquran ñu jàpp ne ginnaaw moom lay waxal ci taahaaja ndax nee na maa anzalna alayka alquran ñu jàpp ne kon wax ak moom daa tudd turam ba noppi di wax ak moom waaye fekk du noonu yaasin ja it ñu xool yaaja defe ne yaa un nidaa la woote la siin ja ñëw di turówa ñu ne kon yaasin waaye fekk loolu même su doon loola sax loolu du yanu maanaam ndax yaa un nidaa bokkul ci turu nit ka kon su boobaa siin rek lay tudd maanaam daal nit ña juum nañ foofu ba wutal ko ay tur yoo xam ne du ñu ay turam yaasin ak taaha ak yeneen i tur sax damaa yem foofu waaye am na tur yu bari yi ñu ko jox nag yoo xam ne du ñu ay turam yi ma tudd fii daal mooy tur yi nga xam ne moom moom ci boppam moo ko tuddal boppam kon daal boo tuddee sa doom muhammad wala ahmad wala almaahi wala alxaashir wala alaaqib tur bu am solo la moom itam ndax nee na mooy tur wi wane ne mooy ku mujj ka maanaam beneen yonent nit du ñëw gannaawam mboolee alxaashir kon wal muqaffa boo ko ci boole lool ci ay turam la bokk nabiyu rahma ak nabiyu tawba waxoon naa ne askan wi wu laab la waasilatu bnu al asqa saxaabi bu màgg la ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yàlla dafa tànn ci doomi ibrahima yi ismail maanaam ibrahima daal am na doom yu bare bare bari yàlla tànn ca Ismaayil mu doon ko sell mu tànn ca doomi Ismaayil ya nag Kinaana mu nga xam ne moom ci doomi Adnaan la bokk nee na mu tànn ca Kinaana Quraysh maanaam askan bi ñu tudde Quraysh nee na mu tànn ca Quraysh Banu Haashim nee na ci biir Banu Haashim nag mu tànn na ca kon borom bi day tànn di tànn di tànn ba agsi ci moom xadis boobu muslim moo ko génne loolu moo tax Abu Sufyaan ba mu meree ba dem ca Hiraql di jéem a kalaame yonent bi ak saxaaba yi Hiraql buur bu màgg la woon boo xam ne yaakaaroon na ne mën naa jële ci moom doole joo xam ne war naa mën a yow attaqué jullit yi ca jamono yooyu Abu Sufyaan doonagul jullit bi mu dikkee Hiraql dafa doon ko xellu mu di ko laaj bokk na ci yi mu ko laaj laaj yu gudd la sax waaye ba nu ca itteel fii moo di mu ne ko waaw askanam fu mu bokk mu ne ko ah ci askan lu gën a kawe ci su roog de nag ci la bokk mu ne ko ah yonente yi de noonu la leen yàlla daan tànnee noonu la leen yàlla daan tànnee xam nga ñoom buñ nekkee ci ëgg réer rek lu mën a doon wax lu dul dëgg nag bokkul nag ci seen mbir loolu moo daal Abu Sufyaan lu nekk mën nañ ko def nag ba mu des nag wax loo xam ne du dëgg moo tax bu ko laajee it nag faaw day jaar nag ci kaari kaari bi da ko lu métti métti day ci askan wa fa gën nag ci la bokk mu ne ko ah yàlla de noonu la daan tànnee yonentam mu xam ne la mu doon dox booba du sotti doomu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu góor ya ak yu jigéen ya yépp ci Xadija bint Xuwaylidin radiallahu anha ci lañ juddoo ba mu des Ibrahim ibrahim rek moom la maria alqibtiya jur maria moomu almuqawqis nekkoon buur bu nekk ca misra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebal fa ay ndaw ñi di ko woo ngir mu dugg ci lislaam biñ dikkee jàng leetaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba àggal mu ne leen dégg naa li mu wax teral leen ay tiraanga ba noppi yëkkati maria ne ko kii boo demee ne ko maa ko ko jox addiya muy soxna su su ràññi ko ñu indi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam féetewoo ko ci wàllu soxna mu jur doomam jooju ñuy wax Ibrahim waaye lu dul kooku nag soxna Khadija radiallahu taala anha kooku moo jur yeneen doom yi ci des ay doomam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yu góor ya mooy alqaasim moomu nga xam ne moom la doon dàkkentaloo ñu naan ko abul qaasim xaasim moomu ay fan yu néew la dund génn àdduna wax nañ ne taahir moo ca tegu ak tayyib ak abdullah waaye li gën a wér moo di ne abdullahi moomu moom lañ doon dàkkentale taahir di ko wax tayyib kon kenn ke abdullahi mooy doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy tudde taahir taahir mooy ku laab ka ak tayyib mooy ku sell ki ku teey ki tur woowu dañ ko doon jox moom itam ibrahim nag madina la juddoo moom doom yu góor yi moo ca gën a gudd fan am na ñaari at dund na ko ak ñaari weer jëkk a génne àdduna baayam luy toll ci ñetti weer kon kooku mooy ibrahim doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax alxuraan lu doy waar la am na boroom xam-xam yi ci li ñuy gëstu ci liy wane ne alxuraan mooy alxuraan te ci yàlla rek la mën a jóge mooy jamono yi nga xam ne boroom baa ngi wàcce ne wa ma muhammadun illa ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatama annabiyin loolu bi muy wàcc ibrahim mi ngi dund yàlla ne muhammad du bàyyi kenn ci góor ñu mag ñi kon booba lañ xam ne ibrahim du mag ba doon góor gu mag loolu borom bi tabaraka wa taala rek moo ko mën a xam moo tax ñaari at la dund ak ñaari weer daal di wuy ji boromam doom yu jigéen yi kon doom yu góor yi ñett lañ mooy alqaasim ak abdullahi ak ibrahim doom yu jigéen yi nag ñeent lañ moo di Zeynab te mooy ka ca mag kooku moo di taawam alayhi salaatu wasalaam ku ñu wax abul aas ibnu rabia moo ko takkoon ci jamono yoo xam ne yu yàgg la woon ruqaya usmaan ibnu affan radiallahu taala anhuma moom la ko yonent bi joxoon fatima ali ibnu abi talib la ko jox kon mooy yaay alxasan ak alxuseyn ñaar ñooñu nga xam ne ñu bari dañoo defe ne seex lañ ñoom itam ba saa bu ñu amee ay seex tudde leen ko waaye du ñuy seex xasan mooy mag xuseyn mooy rakkam ah ak ummu kalsum moom it gannaaw boo xamee ne ruqayya soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn àdduna di doomi yonent bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa jël rakk ja muy ummu kalsum daal di ko cay toftal toftal mu daal di nekk soxna Ousmane ibnu Affan kon Zeynab ak Fatima ak Roqaya ak Umm Kalsoom ñooñu ñooy doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu jigéen moo tax al imaamu nawawi day wax ne fal banaatu arbaun bila xilaaf doom yu jigéen yi moom amul ak juyoo ci ne ñeent lañ wal banuuna thalaasatun ala saxiix nee na doom yu góor yi nag li wéer mooy ñett la kon dalay war ne xilaaf am na fa xilaaf ba la ko indi mooy ñu jàpp ne taahir ak tayib ñu ci nekk ay doom lañ waaye fekk ñoo ne nag la wér mooy duñ ay doom waaye dàkkantal lañ ci abdullah kooku mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak i doomam dund na fa màkka ñi di ko xam ci njub ci baax ci sell ci kóolute ba am ñeent fukki at xam nga ni ko am ñeent fukki at doonatoo gone musuñu koo tuumaal ci lenn wala ñu wax ci moom wax ju ñaaw wala ñu gis ko saa buñ mos a jaaxle sax ci moom la ñuy dellu bi mu amee ñeent fukki at la yàlla wàcc ci moom alxuraan mu doon ab yonent alxuraan tàmbalee wàcc ci moom tàmbalee ko ci iqra ay qisas yu gudd la waaye dañuy romb rek ah bi mu demee ba ay at tegu ci yu néew ñi nee na ñetti at ci la ko digale ne ko nag lii ñu wàccee ci yow jógal nga jottali ji ko kon foofu la ko tàmbali di ko fésal bi mu tàmbalee di ko fésal muy jóg di woo nit ñi nag ci lislaam di leen wax ne bàyyi leen jaamu këram ak caaxaan te jaamu yàlla loolu indi na ay jafe-jafe yu bari ndax ab société boo xam ne daanaka la fa nekk mooy jaamu këram lañ xam kaaba ga rek ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay xëram nga fa yuñ sampoon yoo xam ne kër gu nekk ak saw xëram yenn kër yi sax am ñaari xëram wala ñett xëram wu ci nekk ak bis bañ koy dikkal di ko defal lañ koy defal ci kaaba goo xam ne dañ koo sampoon ngir wéetal yàlla kon kenn nit koo xam ne xëy na feeñ ci xur woowee fas yéene li lii lépp daf fee war a jóg ñu jaamu yàlla dong la fa nekkoon ci ay jikko mooy ku man sa morom duma moo tax ku amul aw askan doo fa mën a dëkk alal yel waay mën a am lu lew daal mooy lu tàbb ci sa loxo alxalaalu ma xalla fil yad noonu lañ ko doon waxe kon béréb la boo xam ne lëndëmoon na këriis ñu xëy xëy yónni fa kenn jenn jëm yoo xam ne moo yor responsabilité war a soppi loolu lépp loolu lu rëy la loo xam ne kuy woote ku ne image boobu jeneer boobu wala day delsi ci sam xel jamono ju nekk nga yëg ne jenn jëmm tey ku la ne woon cëpp ci dëkk wala sax cim réew nag faf ne la yow rek yaa fi yor loo xam ne mooy li jóge ci yàlla mu sell nga war koo jot li ba nit ñi di ko dunde te soo ko defee def nga li la tax a jóg soo ko deful la la fi indi woon defoo ko kon kooku yan la nag bu rëy a rëy boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala yan na ko jëmm jooju moo tax lu ne ci xeeti lor nag bi mu tàmbalee woote boobu daj na ko moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag kaana saabiran muhtasiban dafa joxe ay bind ci muñ ak sàkku tayaabay suñu borom tabaraka wa taala muñ te yàlla tax digal saxaaba yi it loolu xeetu lor wu ne da doon tegu ci seen kaw waaye ginnaaw ki wàcce ci moom alxuraan moom lay déglu lu mu nekkul def ko du ko def bi ñu teg ci ñoom lori yaram sax di leen dóor ak di leen def yu bon a bon sax sañu ñu fay ndax yàlla néew leen fayu leen booba daal ndigal lim am mu jóge ci boroomam mooy na leen jàngal tawxiid bañ jóge ci bokkaale mu yar leen bañ doon ay du góor yu dëgër ndax lislaam it noonu la nag ki dëgëragut war a gut a dugg ci ay maharik ak ay xeet ak yu meloon ndax dañ lay gañe ndax pas-pas bi dafa war a sell li fee tawxiid nekku fa nga ñaay mënu faa nekk loola moo tax tawxiid ba na jiitu ba sell ba nit ki doon borom kàttan su ko defee amatul kàttan buy taxaw ci kanamam kon lor bu demee la gis nañ ko rawatina bi nga xamee ne xadija ci ñiñ ko doon rusee la bokk génn na àdduna Abu Taalib di bàyyi taxam ci ñiñ ko doon rusee la bokk mu génn àdduna ñoom ñaar ñëpp ci diggante bu jegee lool mu dem ba gis ne saxaaba yi lor yi ñu leen di lor metti na ci ñoom mu ne leen ah te ngeen a gàddaay dem xabasha xabasha boobu capital bu mag la boo xam ne dañ doon coloniser sax ay réew maanaam yaman ci boppam ci biir xabasa la toppoon réew yi foofu yëpp topp ko xabasa bu ñu ko waxee jamono yooya mooy fii Éthiopie nekk tey ak lu bari ci Somal ak lu bari ci Soudan loolu ci biir xabasa la duggoon kon mamlaka boobu mu nekkoon benn royaume bu mag foofa dafa yilifoon yeneeni réew lu mel ni yaman ak na ngeen ko xamee nam tolloo la fa ne ci histoire ak lépp waa xabasa ñoo leen yilifoon demoon na ba àggoon ci jamono yoo xam ne dañoo bëggoon a yilif si Màkka doon ko nangu si loolu moo waroon Abraha ànd ak armée ñëw di di nangu si kaaba gi fas yéene nangu màkk kon ay colonisateurs yu mag la ñu woon waaye jamono yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di woote fekk na ka fa nekk woote na ak abraha lool abraha ci jamono yi maam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la woon alquran moo ñu ko nettali waaye ka fa nekk jamono yooyee di ashama an-najashi kooka woote woon na kooka moo tax mu ne leen te ngeen a gàddaay dem xabasha buura nga fa boo xam ne kenn du tooñ kenn fa moom maanaam commande la kooka jaafar ak ñoom àndal ak saxaaba ya lu mat ñaar fukki nit ak nangam ci góor ak jigéen ab lim bu bari sax ñu àndandoo dem xabasha gàddaay nekk foofa kon loolu da lay wane métit ba moom mi nga xam ne mooy borom yëf yi nag lu métti métti mënut a gàddaay moom bu gàddaay àdduna tukki yërmandeem ci saxaaba yi ak di leen joxub dars ne nit ki fu mu nekk mënu faa dund diineem war naa mën a seeti feneen fu mu ko mën a dundee booba loolu la jublu alayhi salaatu wasalaam moo tax mën a dem leen waaye nag moom mënut a mënut a dem moom ak demam teel na ñëw na ci saxiixul buxaari ak muslim ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na julli oqba ibnu abi muayt fekk fa muy sujjóote di julli mu romb sébbiriit yoo xam ne dañ koo rendi woon ba jàll ko fa ba mu yàqu mu jël dara ànd ko ñëw sotti ko ci kawam fekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi sujjóot fa lam yasal saajidan mu sujjóot sujjóotam bu yàgg àggale ak julleem geesuwu ko tontuwu ko sax ba Fatima radiallahu taala anha di doomam doon xale bu ndaw boo xam ne boobu ay at yu néew la am moo jóge gannaaw baayam ñëw faxas loola ba mu set bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam siggee ci julli googu bokk na ci lam ñaan mu ne allahumma alayka bil malai min quraish yàlla day maa ngi lay def sama diggante ak ñii nga xam ne ñooy kilifay kànga bi quraish yi mooy ñi fa ëpp doole doon borom baat ya te lor ju ëpp ci ñoom la doon jóge bi yonente bi alayhi salatu wasalaam àggee ci di ñaan ñaan boobu booba mbir ma metti na benn bis Uqbat ibnu Abi Muayt moomu fekk na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw mu ñëw téye mbaggu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fab mbubb mi mu sol laxas ko ci baatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu seere mel ne ku koy kut fekk da koy jóge gannaaw Abu Bakr Siddiq radiallahu taala anhu jóge ko gannaaw fil ko di ko wax ne ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen di lor nit di ko rey koo xam ne bakkaaram mooy rek nee na yàlla doo ngay sama buur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci at mu tar moomu makka metti lool néew lool nit ñu taxaw ànd ak ñoom ñu mën dara yoruñu itam digalul fayu at moomu génn ne xaaral ma ñëw seeti banu saqiif ndax aw nit lañ yoo xam ne déggoon naa ne ñu xellu lañ su ko defee ma dem woote ji foofa loolu it lu am solo ci woote bu mu mën a doon la mooy bi nga xam ne dem nga ba mbir ma nam fa war a doxe doxul nga jiima def décentralisation jóg dem seeti feneen ndax foofu yàlla mën fa ubbi bunt ñu am xéewal ñëw ndax li téem kat mooy nit ñi nañ gindiku rek amu ci benn intérêt moom sax alayhi salaatu wasalaam mu aw yoonu taayif nee na bi mu demee saqiif bañ koy teeru wax yu ñagas yu ñaawa ñaaw lañ wax ak moom ba àgg ci di ko di ko reetaan sax di ko soroote mujj sax boole koog ñi nga xam ne ñooy seeni sufaha fenn fu nekk am na sufaha yu fa nekk mooy ña fa yées agresseur yaat sàcc saag yu mel noonu ñu yor ay xeer topp ko di ko sànni ñii di teg aw ay dëkk ci yoonam ba mu jóge taayif tànk yaa ngi nàcc yaram yi lu ci bare bari newi na ndax xeer yi ñu koy sànni seetal loolu bi loolu amee moo koy nettalil boppam nee na fa xarajtu min taif intalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi nee na bi ma génnee damay dem noonu rek waaye sax xaw ma fu ma jëm àndul ak kenn alayhi salaatu wasalaam nee na falam astafiq illa wa ana bi qarni saalib maanaam bi muy dem xamut fan la toll waaye nee na bi ma toll béréb bi ñuy wax qarnu saalib foofu lay door a gindikoo nag maanaam dafa meloon ne ku gëlëm waaye boobu lay door a wax ne ah man fii laa nekk qarnu saalib ba léegi mooy béréb bi nga xam ne ñi jóge najd di aji foofu mooy seen miiqaat maanaam fa la ñuy armale nee na ma am lu ma yëg ma yëkkati sama bët ci kaw asamaan si gis aw niir bu may may ker ma xool gis jibril alayhi salaam mu woo ma ci sama tur ne ma yàlla day gis na li nga xam ne saw nit loolu lañ la def ak tontu li ñu la tontu yónnee na la nag malaayika mi nga xam ne moo yore aljibaal maanaam doj yi ngir nga digal ko lu la soob nee na bi jibril daaneere rek ma xool malakul jibaal malaaka mi nga xam ne moom la yàlla dénk lépp lu aju ci montagne mu ne ma day laqad baasani ilayka rabbuka li tamurani bi ma chit yàllaa ma yebal ngir ma def lu la soob in chita an utbiqa alayhim al axshabayn bu la soobee ñaari doj yi séq màkka mi nekk ci penku wi doj nekk ci càmmooñ ñoom lay boole maanaam def leen nañ daan def nit ñu njëkk ña rek ci jamono yonent ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li wute ab wooteem ak wooteem ñeneen ñi mooy day gis fu sori nitu tey ñi li ñu tuddee stratégie maanaam sa bët yëmul ci sa wewu tànk waaye xool lu sori booba mënoon na ne alagal ma waa màkka ñu alag leen mu génn dem seeti feneen waaye nee na ko bal arju an yuxrij allahu min aslaabihim man yacbudu allaha waxdahu laa yushriku bihi shay'a mu ne ko déedéet bul def dara maa ngi am yaakaar ci ne ëllëg mën naa juddoo ci ñoom ñii ay nit ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla te duñ ko bokkaale loolu mooy gis ba hadis boobu mi ngi ci buxaari mi ngi ci muslim ci la del see màkka nag téewul ba tey xelam li ci nekk mooy daawa bi dinaa waa màkka niñ ko war a jële jëlewuñ ko ni war naa am beneen suuf boo xam ne ñoo koy jël nee na mu génn di dem aqaba ka ñëw parce que am na ndaje mu fa daan am moo xam ne ab tereet la bu jotee bu doon suuf jamono tey ji daal dañ naan ab luuma boo xam ne saabu am na waxtu boo xam ne su jotee ñëpp dañ fay daje marché la ab jala boo xam ne bu waxtu wa jotee dañuy ñëw mu di fa ñëw moom itam di woote si yàlla dogal mu gise faak ay nit yoo xam ne yasriba lañ jógee foofa mooy dëkku yaayam mooy fi ñu tudde madina tey mu waxtaan ak ñoom ci li mu yore ci woote boo xam ne yàlla sant na ko ko ak taxawaay bi nga xam ne waa Màkka taxaw nañ ko ci ñooña daal di tuub dugg ci lislaam ñu ab lim boo xam ne juróom benn lañ ca la gën a wér ci wax yi juróom benn ñooñee bi nga xamee ne tuub nañ mu ne leen bu ngeen delloo Madina lii ma leen jàngal na ngeen continuer di ko jàngale mooy dugal nit ñi ci tawxiid ndax booba kat mbir mi yomb na diine ji duggagul ci ay détails ñu naan la lii ngay julleeg koor gaag asaka jaag waaye daal jaamu leen yàlla képp te bàyyi jaamu xel léegi xam ngeen loolu tàmbali ngeen di ko dund bu ngeen demee tàmbali leen yéen di ko tasaare fa Madina ah ñu dem Madina ñooñu itam di woote ba mbir ma nag tàmbalee tasaaroo ci biir Madina ñu woote lool nag ak waa Màkka loolee ñooñuy tuub tey juróom-benn yonent bi jaayante ñoom ci ne nañ dem jottali ji lislaam muy tawxiid loola la ñu tudde al aqabatul ula biñ demee nag ñooñe ba amum at fekk ñu bari ci waa Madina tàmbali nañoo dugg ci lislaam ñooña am na ñeneen ñu dellusiwaat ñoo xam ne ay jullit lañ tasewaat ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi lim ba ñëwit bari na ndax weesu na juróom benn yi waaye ñeneen dolliku nañ ci ñoo xam ne bëgg nañoo gis lool kii nga xam ne ci diine ji muy woote ci lañ dugg ñooñu àndandoo ñëw gisee ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofa la defanteeg ñoom bayatul aqaba thaniya maanaam jaayanteeg ñoom ci ne na gàddaay jóge Màkka fekk si leen Madina parce que ñoom ñoom proposé loolu itam dajeeg nag ndigalu suñu borom tabaraka wa taala ku jàpp ndalam wan ko def ginnaaw fii nga nekk ñooy say nit ñoo la jur ñooy say bokk te nanguwuñ la nun li nga nekk gëm nañ ko bàyyi leen fi fekk nu fa nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante ñoom ci loola waaye booba it jaayante ga mooy saxaaba yi ku mën a ñëw rek na ñëw ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam joxe ndigal boolem saxaaba yi ku mën a gàddaay dem yasriba gàddaayal dem muy Madina jullit yi tàmbali di gàddaay di dem ku mën a wàcc ko rek dem waaye demin yu metti lañ doon dem ndax xam nga ku juddoo ci dëkk ba màgg fa ba yor fay alal yor fay tool yor fa sam njaay mënoo xëy xëy benn bis yenu lépp yóbbu moo tax yéefar yi li ñu doon def mooy kuñ yëg ne da ngay dem suñ la mënee dab rey dañ lay dab rey suñ la mënee delloosi delloosi la suñ ko mënut lépp loo fa am moom dañ koy daal di boob séddoo ko noonu lañ doon def kenn rek lañ gis ne ba muy gàddaay moom nëbbu ko muy Omar ibn Khattab dafa xëy déclaré ko ne maa ngi nii ku ma xam maay Omar maa ngi nii Madina laa jëm yor jëlseen laa dem kon noonu lañ def ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne lim bu bari jógee nañ Màkka nag dem Madina mu daal di préparé rek ànd ak Abu Bakr Siddiq radiyallahu taala anhu daal di dem bi mu ñëwee ba ci fi ñuy wax waaru sawri it muy am xunti moo xam ne ma nga màkk ba léegi am na fa alayhi salaatu wasalaam ñetti guddi yoo xam ne it seetlu waa màkk lu ñuy def ak itam xam ne danañ daal di jéem a def luñ man ngir dabi ko ci yoon wa suñ ko seetee ba gisuñu ko ñu door a dellusiwaat xam na ne loolu plan la boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko teg def sax ay tartibaat yu bari nag ay tërëliin yoo xam ne lam ci jublu mooy jàngal nit ñi ci ne ku bëgg a def dara ku mën a doon faaw nga jël sababi loolu maanaam jaar ko fa nga ko war a jaar béréb boobee kéemaan yu bari am na fa xunti moom toogoon ak Abu Bakar Asma doomi Abu Bakar moo leen daan wit ñam foofu am na ku ñëw Abdullah ibn Urayq moom moo doon am moom itam service bu ñu ko joxoon ab sàmm la woon boo xam ne moom moo doon effacé tànki nit ñi nga xam ne ñoo doon jaabante di dem ak a ñëw ndax waa màkk ñu mën a topp ay tànk mën a xeñtu mboor ni ñu koy waxe su ko defee su fekkee asma jaar na fa wala kenn koo xam ne ñëw na fekk leen ci xunti moom ba delluwaat mooy gaaw jaarale fa ak juróom su ko defee tànk yooyu kenn du ko gis ba mën koo topp moom service boobu la yor moo nga dañ ko ca doon Aboubacar moo doon financé loolu lépp moo ko ci fay am na nettali bu siiw boo xam ne téere yi bind ci wàllu mawlid dañ koy bind waaye amul cosaan dëgërut mooy dañoo wax ne waa Quraysh bi ñu ko toppee ba ñëw ba ci buntu xunti ma dañoo xool gis ne am petax tàgg na fa ba nen fa biñ gisee tàgg meeg nen yi ñu ne am yu xunti de yi nit géej na fi daal di génn dem wàññi ko waaye ñëw nga ba agsi ci buntu xunti ma wér na waaye tàggum petax moo wérut riwaay yi ci ñëw yépp benn wéru ci te bul fàtte ne kéemaanu yàlla gi fa mu gën a dëgëre mooy tàggum petax ma bañ faa nekk ndax dara nekk fa ba noppi gisuñu leen maanaam amut lenn lu tee ñi war leen a mën a gis lu dul ne yàlla moo leen ko xañ biñ taxawee Abu Bakar a ngi wax ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko déey ne ko bu ñu xooloon seeni tànk rek day kon danañ ñu gis mu seetlu ci moom xaw a am tuuti yàqare moom Abu Bakar mu ne ko laa taxzan inna allaha maana bul tiit yàlla lan àndal waaw maaye boobu nag mooy loo xam ne fu waay toll fu ne di ko soxla inna allaha maana jooji mooy jël si ci ne in tansurullah yansurkum soo ko nekkalee mu nekkal la yonent dafa am yaqiin joo xam ne kuy yëngu ci diine ku mu mën a doon war nga caa amub cër waxuma ne melal ne yonent waaye am cëb cër mooy mu wóor la ne ginnaaw wóor la ne ci siraatul mustaqim nga nekk yàlla mooy aar li nga nekk yonent ba sañ na caa fasaale ne day aarale jëmmam ndax aar jëmmam ci la aar diine ji nekk keneen ku mu mën a doon nag yàlla mën naa aar diineem te doo aar sa jëmm nag jëmm ji mën naa dem waaye diine ji des fala yaqin boobu moom dañoo war a am ne diine ji moom àll ko xal dafay des ànd ak ne yo- borom bi tabaraka wa taala day ànd ak ñi ko nekkal nag loolu ci la moo tax ñoom ñaar ba nga xamee ne saaniyas nay nii li ko borom bi tabaraka wa taala waxee abu bakar lay sant foofu ne na ki nga xam ne moo ñaareeloon ñaar ña maanaam yonente ba mooy benn mooy ñaar bi mu jàqee bay wax loolu daf ne ko laa taxzan inna allaha maana banu Israël ak Muusa biñ demee ba njaaxum bu metti ga ñëw seen diggante Firawna ba ñu xëy Muusa boroomam digal ko ne ko na na daw ci gàttal noonu lañ ko mën a waxe mu xëy ak ñi ko gëm ñépp di dem Firawna génn ko armeem topp ci moom bi Muusa ñëwee ba géej gi sës moo ko nitam ñu xool gis seen kanam di géej ñu xool seen gannaaw muy armeeb Firawna ñi ànd ak Moussa lañu wax inna la mudrakuun nun day peeg nañ nu du dab nañ nu waaye peeg nañ nu ndax ci kanam géej fi ne ci gannaaw nit ñaa fa nekk armée bi Moussa lu mu wax foofu yaqin foofu ma la yam fi la mën a yam nee na kalla inna ma'iya rabbi sa yahdin yàlla laa àndal te dana ma wax nu may def waaw moo ma digal ne ma génnal génn naa ñëw naa ba mbeex maa ngi nii noonu baa ngi ci gannaaw dana ma wax lu may def nag fi muy waxee loolu rek xool gis mbedd ci biir géej gi mu sóobu ànd ak ko nitam firaw na ci ndoxam ak ñam àndal ñu sóobu ca mbedd ma ñoom itam suñ xamoon dara xam nañ ne loola du seen mbedd bañ demee ba Moussa toll ci génn ñoom ca lañ toll ci digg bi mbir ma delluwaat melaat na mu meloon ñoom ñu jeex tàkk kon tomb bi muy wax foofu mu doon bu am solo mooy jamono yi nga xamee ne ñi ngi taxaw ci xunti mi jàpp ne ñii moom Aboubacar jàpp ne ñii moom jàpp nañu leen ba noppi yonent bi def ne ko yàlla laa ànd yàlla lan àndal waxin bi sax foofu xaw naa wute waxinu Moussa ndax Moussa lim essayé ci aw nitam muy banu Israël gi àndoon ak moom seeni wor dafa waroon a dafa bari woon yàlla mënul woon a gaa Moussa mënul woon a garanti ne yàlla ñëw ñëpp la àndal moo tax ñëw maana ñëw kalla inna maana rabbi waxut loolu inna ma'i rabbi man saa bopp laa xam maa yonent bi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne kii ma àndal ku mu doon muy as-siddiqul akbar mu ne ko inna allaha maana maanaam ñun ñaar ñëpp la àndal fii kon loolu wuti na ko la Moussa waxoon fële kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la génne dem Madina ci nett li yoo xam ne yu bare bari nag xew na ci yoon wi waaye ginnaaw lii du gàmmu kon dañuy jàngat dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci niñ ko war a jàngate mënuñu détail bu nekk ñu taxaw ca waaye bi nga xamee ne daal dem na Madina julli di teeru nañ ko foofa teral ko bi mu àggee la mu jëkk a def mooy tabax jàkka jàkkaam jee tey moom la jëkk a tabax gannaaw boo xamee ne jënd na suuf sa ci ay jirim yu ko moomoon yëgoon ne ay xabroo nga ko mu ne nañ ko sulli ñu sulli xabru yi yóbbu leen ca bàqe tabax foofa jàkka ji foofa it beneen bind nga fa nag moo di ne jàkka warta fekk si ab xabru xabru it warta fekk si jàkka ba mu dikkee ay xabru la fa fekkoon yoo xam ne xabru yi cosaan la woon fa màkka ñu suul leen ca bérébu jàkka ja mu ne nañ leen sulli ñu sulli leen yóbbu leen bàqe suul leen foofa ñu maasale ba mu baax ñu tabax jàkk kon loola la fa jëkk a def bi mu noppee ca loola mu door a sañ ci kër soxnaam ya ñu wutal leen ay néeg yoo xam ne dañoo sës ca bérébu jàkk ja lépp ci benn terrain bi nga xam ne da koo jëndoon ci alalam joo xam ne alalam moo fa dem moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak alali Abu Bakr Siddiq ak alali Ousmane ibn Affan ñett ñooñu la ci seen dara dem ñi daal di moom terrain ba mu ne leer li nañ ko def jàkk li ci des mu ne ko néegi soxnaam yi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah yonente bi nag alayhi salaatu wasalaam gannaaw boo xam ne loolu jàll na foofu la toog nag di tabaxaat nag saxaaba yi di leen jàngal tawxiid bala xew gannaaw bi xew lépp foofu la xewe ci téere chamail dañuy jàngale yonente bi salallahu alayhi wa sallam bindam ak jikkoom bindam bokk na ca yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo waxoon dafa nekkoon rabaa rabaa bu ko arab waxee mooy koo xam ne guddul ba ne séréw waaye gàttul itam maanaam digg bi nit yonente bi salallahu alayhi wa sallam guddul ba ku ko seen ne njool maa nga ne le waaye gàttul ba ku ko seen itam ne ndaama gaa nga ne kon ci diggante bi la nekk melokaan yi nag suñ koy wax ngir xam yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo tax waaye bokk ci melokaan yi nga xam ne dañ ne nit ki na ko doon na ko ci roy maanaam mënoo guddal sa bopp wala nga gàttal ko loolu yàlla la koy tànnal waaye li ma bëgg ñu xam ko foofu moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi jox nañ ko itte joo xam ne lépp melal nañ ko am na benn jullit boo xam ne su ma juumul waa Canada la li ñuy wax artiste ab dessin kat la woon boo xam ne kéemaanu yàlla la ci ci ci dessin bi mu gàddaayee foofu tuub Madina ñi- tuub ñëw Madina di jàng ci jaamee islam yi ba yàlla jox ko dara ci xam-xam muy jàng ba ñëw kuliyatul xadiis ñuy jàng fànn bu ñu tuddee ashamail jël téere bu ñuy wax ashamail lil imaam tirmidi bi mu jàngee xul ak xalqu nabi salaam sifaatuhul xalqiya ni ko yàlla bind bi mu noppee daf ne wallahi mën naa koo desee desee boo xam ne su ma ci noppi woon nam meloon lay doon kooku moo lay wan ne borom xam-xam yi bind melal nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci melokaan woo xam ne bàyyi wuñ dara moo tax dañoo wax ne digg bi nit la woon guddul ba ne siro moo tax ca ca waykat bay bind ca barsan daf ne moom ndaamawul defuloon am njool rëyul ne fëtëx dooxul wangul settaxul sëggul maanaam ndaamawul du ndaama defuloon am njool réyul ne fatax maanaam pataawul woon ba ko gis ne kii dafa pataa dooxul doox moo xam ne kuy buy dox biir bee jiitu wangul mooy gannaaw gee jiitu seet taxul am na ñoo xam ne dañoo njoole ba nag boole ko seet tax maanaam ne coow rek benn yoon amul dara lu lu jeng jëm neen yonente bi alayhi salaatu wa salaam melul woon noonu ñu wax ne it dafa nekkoon abyada bayaadan mushraban bi xumra dafa weexoon waaye weex bi dafa mel ne dañ ci jaxase woon ay tupp tupp yu xonq ashara ku bari woon karaw la moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye it adajal aynayni maanaam dafa amoon bët comme niñ koy waxee dafa doonoon itam ku kawar gi ñuul kukk kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu amee juróom-benn fukki at ak ñett nga xam ne at moom ci la génn àdduna soo dee wut ak bi mu tàmbalee di am ay kawar yu weex waaye lu jiitu loolu lépp kawar bu ñuul la yoon ba borom bi tabaraka wa taala léeg-léeg mu def loolu waaye ñu ne yaramu yonente bi alayhi salaatu wasalaam kawar gu bari daawu ko muur maanaam dafa am ñoo xam ne seen karaw ci seen yaram ak seen dënn ak yu mel noonu ñu ne dënn ba daal am na ay kawar yu fa nekk moom waaye leneen li ci yaram bi nag amul ay kawar waxiinam ñu ne wax ju leer nañ ñi la daan wax su waxee benn baat sax waaw dañ ne waadixan fii hudu dafa doon leer ba noppi ànd ak teey xam nga am na waxin yoo xam ne borom bu ñu xasee tàmbali rek rax mel na kuy tari alquran nit ñi lay topp sax dañuy mujj sonn da daan wax wax ju leer waaye day teey léeg-léeg mu jël baat sax baamu ko ñetti yoon ngir ragal a jàll te fekk am na ku xamul lu mu wax loolu yu bind bu am solo la ndax nit ñi kat léeg-léeg ñu dégg dara nettali ko waat ko fekk du noona te fekk dañoo déggut kooka la mu wax loolu ñàkk a leeral moo koy waral moom melul woon noona wax yi namit na ko ki ma doon wax léegi def naa ne borom barsan ji ki ko wolofal mooy Moussa Ka sëriñ Moussa Ka daf ne léebul bërul dotamul nosul dërul toqul woon baatam du lox sewul woon senjul leeb ak bar ak dotom yooyu yëpp ci ay bi wax ci la bokk lépp mooy wax ju tàlli góor guy wax mel ni jigéen yi wax bar mooy ratatat joo xam ne duñu xam li ngay wax dootam mooy làmmiñ wi mënut a génne araf yi fi mu war a génne euh, su bëggee wax laam yaa lay wax bu doon wax laa ilaha illallah day wax yaa iyaa iya yaa loolu mooy mooy dootam nosul nos mooy ci sa bakkan ngay waxee dër moom ñëpp xam nañ ko mooy li ñuy wax ta ta ci arab takkuloon itam làmmiñ wu takk moom it bokkul ak doxam waaye moom sorewuñ baatam du lox mooy koo xam ne buy wax baat bi day ànd ak rab-rab ba ñëpp yëg ne eh, day day rab-rab yi sewuloon mooy baat bi sewut kon baat bi dafa dijjoon baatu góor lay rom alayhi salaatu wasalaam señjul itam señ yi mooy baat boo xam ne bu yëkkatee da ngay dégg lu mel ne parasit bu ci ànd boo xam ne comme rajo yooyu nga xam day suus loolu yonte ba kon loolu li mu lay wax lépp loolu mu wax noonu borom al-Barzanji mi ngi ko jëlee ci téere yi nga xam ne mooy kutubu shamail ay xadis la am yoo xam ne yu sax la yoo xam ne baa ngi ci saxaaba yi ko doon melal da lay wane ne ab yonente ngi boo xam ne bàyyiwuñ dara ci moom ndax su fekkoon ne am na lu ñuy bàyyi kon ñu bàyyi melokaani bind bi moom ndax bind bi noonu royloo wuñ nu ko ci waaye nag yittewoo gañ yittewoo lépp moo tax bàyyiwuñ dara am te it beneen bind bi nga ciy jàng mooy ki nit ñi melal lépp ci moom ba melal ni ko yàlla binde woon kon kooka lam doon jàngale ci diine moom taxut ñuy wax lépp la ñuy jàllale amma nag sifaati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alxalqiya ni ko yàlla binde woon ci wàllu jikko kooka moom mbir la moo xam ne ku doy doy na waxtaan doy na ay waxtaan sax laay wax suñ ko doon gàttal daal dañ naan ni ko saxaaba yi melale mu nekk ci téere chamail mooy ki gënoon a tabe ci doomu aadama yi yàlla ma sa bind tabe moo ko ci gënoon a def mooy ki ci gënoon a dëggu ci lu muy wax mooy ki ci gënoon a rafet nu muy àndee ak nit ci wàllu jikko waaye mooy ki ci gënoon a jàmbaare ci doomu aadama yi waaye mooy ci gënoon a am lu muy jomblu waaye mooy ki ci gënoon a toroxlu gën a wayaflu ci kanam nit ñi loolu lu am solo la ko moom te walaw kunta faddan galiza alqalbi lam faddu min xawlik yàlla daf ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum yërmande yàlla moo tax nga nooye nii sa jikko yu rafet ni nga toroxloo nii ci seen biir walaw kunta faddan su fekkoon ne da ngaa doon faddan galiza alqalbi mooy ku naqari deret koo xam ne soo waxee mu gëdd la mere la kon lan faddu min xawlik kon ñoom ñëppay dem seen yoon kenn du fi nekk loolu mooy fànn gi ñu tudde tey fànnul qiyaada maanaam wombat mbooloo wombat mbooloo ci li gën a jafe la bokk mbooloo lépp a ngi ci seen biir pareel itam ne lu ne da nga ko dégg nag ci ñoom su fekkee loo dégg mer wala nga bàyyi la nga nekkoon wala nga yuuxu wala nga dellu gannaaw wala nga soxla jël sa itte jëpp def ko ci tontonteeg ñooñu doo jëm fenn doo dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na lu ñëw ci jullit yi mu séddale ba àggal jox ñii jox ñii jox ñii jox benn waaye jóge fële ne ko ittaqillaha ya muhammad ittaqillaha ya muhammad ragalal yàlla mu ne ko moomaan su ma ragalut yàlla kuy ragal yàlla man mi xabaar bu jóge ci asamaan bi ñëw ci man su ma ragalut yàlla ku koy ragal mu ne ko bii séddale yàlla taxut xoolal loolu ci biir jullit Omar ibn Xattaab ne ko kii munaafiq la bàyyi ma dagg loos bi mu ne ko déedéet ndax nit ñi mën nañoo wax ne Muhammad day rey ay àndandoom ci àndandoo yi la bokk lu métti métti te loolu day indi publicité bu ñaaw day yàq darab lislaam ñi doon bëgg a tuub si ñu ne ah koo xam ne boo tuubee kat mën ngaa toog ba mu yàgg nga wax dara rek ñu dagg sa loos kooku sooy ba mu seeti beneen propagande bu ñaaw boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la doon bañ foofu waaye mu ne ko jëmm ji nga gis dana génne ci ndiggam ay nit ñoo xam ne buñ dee jàng alxuraan da ngeen xeeb seen njàngum alxuraan yéen seen njàngum mboq da ngeen ko xeeb suñ dee koor su koor ñëwee ba ñuy woor yéen da ngeen xeeb seen koor ci seen kanam waaye day ñooña dañuy fëll jóge ci diine ji comme ni nga xamee ne ak fet bal ba day fëll di dem noonu la ñuy génne ci diine ji maanaam nit ñu taral seen diine la ñu doon waaye nag duñ ca yàgg ndax ku ëppal da ngay gaaw a bàyyi moo tax lislaam wasat la lu digg doomu la ku bëgg sa dox sori da ngay yenu lu nga àttan da ngay gis ku yenu lu diis a diis fas yéene nit ñi yenu ko suñ ko yenuwul mu ne leen du ngeen jullit sax faf waaye bu doxee tuuti nga seen mu yenni ko faf gis nañ ñu bari ñoo xam ne ci ñi gënoon a taral lañ bokk yàlla xam ne dañoo mujj far bokk ci fasikoon yi kaccoor yi nga xam ne dañuy taxawal nekk amatuñ sax faf diine kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooka la wax ne ñooñu mooy seen mooy seen maam ki waxoon loolu ci kanam yonente bi moo tax borom xam-xam yi néewut néewuñ ne ci askanu waa ji la ñuy bokk ci wàllu deret waaye ci wàllu jaar ci yoon wi mu jaar la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la doon waxee kon daal mooy ki gënoon a lewet ci nit ñi gën cee amuk dal gën cee laa biir gën cee woyof taa it nag noonu lay mel ndax lu bëree bëri yi xew ci jamono ji mu di rek ay tur ak yu mel noonu yooyu yëpp ay formation la yoo xam ne nit ki daf koy def waaye lii day wàllu jikko woo xam ne nit ki dafa war a jikko jikko lu woo ba mel noonu su fekkee jikkoom la alhamdulilah su ko doon woon na ko jéem jàng jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéem a mel noonu defal sa li li gën a rëy ci loo xam ne moom nga war a gën a jëkk a yar sa bopp mooy kenn mën laa merloo ci lu jëmut ci yàlla maanaam su fekkee sa cëru bopp la fexeel ba tàggatu ci ne yow loola doo ca mer soo xasee def loolu ba jàll ca loolu amatul soxla ci leneen moo tax li ci tegu daf ne wala yaxdabu li nafsihi yonente bi sallallahu alayhi wasallam musta meral boppam wa innama yaxdabu li rabbihi yaxdabu li rabbihi su meree rek ormay yàlla wala diine moom lañ xotti looloo ko mën a merloo waaye lu jëm ci jëm moom amul solo te it bu ko neexoon alayhi salaatu wasalaam mu ne ku ma merloo merloo nga yàlla mu mer ci loola ndax mooy yonente bi ñun ñii fii ci jullit yi ko waxoon ci yonente bi lu ñaaw moom dañu jàpp ne diine ji nga gëmatul far kon su nit waxee ci moom lu ñaaw téewut moom loolu daaw ko tax a mer wa kaana yakulu ma wajada lekk itam lu mu am rek jël maanaam ñu naan lii la lii mbañam laaj nañ ko wutal barab sàngam ak dañ ko xamul yooyu lu mu jot daal jël su dee lu dagan nee na weer daana feq ba weer feqaat ba weer feqaat wa maa yuqadu fi abyaatihi naar ñetti weer daana tegaloo kenn du taal cin ci këram dëddu adduna taxul waaye addunaa leen dëddu yorul woon xaalis yorul lu muy jënd ak dund amu fa woon tàndarma waxal na ko boppam nee na al aswadaan daanaa ko dunde ay weer muy tàndarma ak ndox suñu waxtee seen tàndarma dikk teg lekk seen doomi tàndarma naan seen ndox dem dem seen yoon jaamu ci seen borom wa kaana yujaalisul fuqara da daan toog toog ak ñu ñàkk ñi wal masaakiin di seeti ñu feebar ñi di ànd ci néew yi ñi di leen robi kooku moo doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon maa jiite diine ji ne gumu fi béréb doo génn loolu amut woon ci yonent bi xamut loolu da nga génn ci biir nit ñi ñu lay gis di julli ci jàkk yi di ànd ci néew yi di seeti ñu feebar yi bépp xew boo xam ne bu farata la bu lislaam xam mu jaral la nga jóg waaye nag xew bu lislaam xamul nag jaral ko jóg moom alayhi salaatu wasalaam daana kaf sax nag waaye nee na musta kaf te waxul lu dul dëgg suy kaf dëgg lay wax kon loolu lu am solo nag ci kaf as soxna mas naa ñëw ne ko soxna su màggat ne ko ñaanal ma ma tàbbi àjjana mu ne ko màggat du tàbbi àjjana soxna si tàmbali di jooy mu ne ko déet déglul ma firil la li ma wax nit ñi faatu war a tàbbi àjjana ñoom ñëpp yàlla da leen di delloo si ba ñu toll ci seen digg bi doole mu door leen dugal àjjana loolu moo tax màggat du dugg àjjana daal di koy ñaanal alayhi salaatu wasalaam daana ree it nag alayhi salaatu wasalaam waaye daawul xàqtaay nag kenn mënu ko woon a xàqtaay lool ki gënoon a dàqa reeloo yonente bi ci saxaaba yi moo di Abdullahi nu mu tuddati ibnu sa ibnu Xudaafa as-Sahmi Abdullahi ibnu Xudaafa as-Sahmi mooy ki nga xam ne moom daanaka li doon métier mooy fexe ba reeloo yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yonente bi alayhi salaatu da ko bëggoon loolu nag su toogee ci moom day day wax yoo xam ne ku bëgg yonente bi ree la waaye nag dafay wax ba muuñ daal léeg-léeg mu muuñ ba dégg ji feeñ waaye nag dégg kàddu guy xàqtaay nag loolu mosee su ko dégg ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci jikkoom yooyu anas ibnu malik radiallahu taala anhu nee na liggéeyal naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nekk naa ab surga ci kër yonent kër yonente bi achra sinin fukki at may ab surga ci këram fa ma qaala li cheyin faaltuhu lima faalta wala li cheyin lam afalhu ala faalta kada nee na musuma am loo xam ne dama koo def mu ñëw gëdd ma ne ma la tax nga def lii wala loo xam ne dama koo deful woon mu ñëw ne ma gëdd ma ne ma lu tee nga def ko nee na loolu kàddu googu mosuma ko déggee ci moom kon loolu kooku ku kuy mel noonu léeg-léeg noonu li nu miin ci wàllu yar danañ na ne waaw ndax kii moom da doon yar sax kon nag ginnaaw da ngay def rek waaye fekk li ñuy tudde ëlhad yi melokaat ba yonent ba yor ak na muy dunde moom loolaa leen di yar lu am solo la léeg-léeg nit mën naa ñëw ànd ak moom yor ay melokaan yoo xam ne ci moom lay xame ne man li may def du noonu day jékki-jékki gis mu soppi loola day dem ba kooka luñ koy gëdde naan ko lu tax nga def léegi lu tax defoo ko loolu du ko am moo tax am na ci borom xam-xam ñu ne anas lii mu wax ni dëgg la lewetaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak manhajam muy doxalinam ci wàllu yar lay wane waaye day wane itam jikko anas ibnu malik ne moom it ku jub la ndax kat am na yoo xam ne xotti war may lislaam bu ko defoon kooku moom yonente bi du noppi faaw mu wax ca la waaye kon mbir mi noonu la ngir yar bari na ci loo xam ne alhad yi moo koy soppi mooy yar nit ki moo tax al imam alxalaal day wax ne ahmad ibnu hanbal dama daan gis ci ab jataayam bu toogee di jàngale juróomi junni nit ñooy toog xam sa ka àllaf nee na juróomi téeméer yi képp ñooy ñëw yor seen i kayit ak seen i bindukaay di bind xam-xam waaye ña ca des ñépp ñu jàng am xam xam-xam ba mel ne imaam ahmad lañ waaye dañoo ñëw ngir sàkku si ci moom kat yi di xool la muy def kon ñeenti junne juróomi téeméer yépp quatre mille cinq cent personnes yi dañoo ñëw ngir xool imaam ahmad ni muy jàngaleeg nu muy def ak su duggee ak su génneeg jikkoom moo tax ñu taqoom moom di ko xool ngir roye ko ci moom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën ngaa wax ne noonu la doon yare saxaaba yi kenn ku nekk xam na ne yorul woon ab tableau di bind ak a jàngale ko def la mu jàngul bind waaye ci ay kàddoom ay jubbanteem ak nam doon dunde moom ci seen boppam loolu moo leen moo leen yar moo leen defar kon daal borom bi tabaraka wa taala moo gàttal jikko ya mu ne ko wa innaka la ala xuluqin azim jikko yu màgg fa mu yem yow yaa nga ca kawam ndax la ala li muy fiiri mooy loo xam ne da ngaa nekk ci kaw boo nee lii ala taawi la mooy da ngaa jël loola teg ko ca kaw taabal ca waxuñu ne borom bi jikko lay rafet képp waaye daa ñëw fekk jikko yu rafet moom mu yéeg ca njobaxtan la tàmbalee foofu nag jëm kaw boobu melokaan wu xóot la te borom bi da ko fedd li innaka la wax ba noppi jëfandikoo la maanaam da ko fedd li ñaari yoon inna gi day fedd li laam gi dugg ci ala ji day fedd li fedd li boo xam ne day dem ba àgg ci waat sax borom bi day waat ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa jikko bu baax yam foofu la tàmbalee jëm kaw am na lenn ci ay jagleem moo di ne wax na ko ci xadisu jaabir ibn abdullah bi nga xam ne mi ngi ci buxaari ak muslim nee na jox nañ ma juróom yoo xam ne mosuñu ko jox ab yonent nusirtu bi roxbi masirata shahr yàlla def na ci man loo xam ne su ma naree jaamaarloo ak sama noon sama digganteeg fa mu nekk su xasee mat doxub weer doxub weer ñooñu njàqare dikkal na leen maanaam duutu ñu am jàmm loolu moom la ko jagleel wa ju'ilat liya al ardu masjidan wa tahura nee na suuf dañ ma koo defal mu nekk jàkka defal ma ko mu doon itam lu ñuy laabee loolu beneen yonent mos ko am ku ci masa am diine ku nekk dañ laa rëddal ab ruq boo xam ne moo xam tur wuñ ko mën a jox foofa dong nga mën a jaamoo fa nga mën a jullee waaye nee na moom jullit bi fu ko julli jote mën naa jullee foofa su amee ndox mën naa jàpp su amatum ndox suuf si ci boppam nekk ak laabam kon yàlla defal na ko suuf mu di laab di jàkka loo xam ne beneen yonent amu ko nee na daganal nañ ko li ñuy tudde alghanaim su jaamaarloo ko noonam jihaad fi sabilillahi am alal jóge ca ay noonam loola dagan na ci xeetu lislaam na ko jël jox leen da leen ko daan séddale alayhi salaatu wasalaam nee na loolu daganul woon ci yonent yi jiitu woon ku xeex ba alal ya tuuru it da ngay dem rek waaye suñoo koo fa nee na wa utiitu shafaa maanaam ramm gu mag ga nga xam ne bisu njàqare ba ba ñépp jàq ba kenn ku nekk ñii dem ca aadama mu jox leen ngàntam ñi ñëw ci Moussa ñëw ci kenn ku nekk ñi wax la kenn ku nekk wax loo defoon loo xam ne da nga naan loolu tax na ñemewumaa jàkkaarloo sama borom tey di wax ak moom bañ ñëw ci moom loolu la ñu tudde ashafaatul kubra nee na ma taxaw di ñaan yàlla di ñaan di sabbaal di def ba mu yàgg nee na borom bi tabaraka wa taala ne ma lii du bisu jaamu yàlla ñaanal ñi jox la nee na su boobaa mu ñaan borom bi tabaraka wa taala ramm ko ci ña nga xam ne ñoo yeewoo ku leen ramm ci aw xeetam ku yeewoo ku leen ramm nag mooy ñi doon góorgóorlu seen ba ci jiitu mooy seen pas-pas wér maanaam bokkaale moom da nga ciy mucc ku faatuwaale bokkaale kenn mënut ci moom dara du yonent du du du malaayika du leneen képp ku faatuwaale bokkaale yàlla na ci yàlla musal sawara la jëm loolu na ko julli ñi xam inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha lu yées bokkaale lu nekk mën na ko jéggale moom borom bi ku ko faatuwaale waaye bokkaale du ko du ko jéggale kon ña muccoon ci bokkaale ci xeetam ak bàkkaar yañ nuur nag lu mu rëyoon rëy rëy rëy su boobaa ñooñu mën nañoo dem àjjana ci raxmuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ca demul ci loola it ba jaari naari yàlla na ci yàlla musal itam ginnaaw pas-pas nga yóbbaale woon bu wér bu duggee sawara it nag dana génnaat sawara dem àjjana man dañ koy raxas ba mu set ñu yóbbu waaye yàlla na yàlla musal nag ci jaari feneen moom nee na wa kaana annabiyu yubaasu ila qawmihi wa bu'istu ila annaasi kaafatan nee na bi yonent dañ ko daan yónni ci aw nitam képp mu yem ca bu dee ñee ci banu Israël lañ yem ñii fii waaye nee na man dañ maa yónni ci ñëpp nit ñi ak junne yi ñoom ñëpp lañ- ci lañ ko yebal moo tax mu wax ne moom yaakaar na ne ëllëg mooy ki ëpp ñu koy topp wax na ne itam mooy ki jëkk a fëgg buntu àjjana wax na ni itam mooy ki nga xam ne bu ñuy dekki ab xabroom mooy jëkk a fett xar mu jëkk a jóg di ju alayhi salaatu wasalaam ci atum fukkeel gannaaw boo xam ne gàddaay na ba am fukki at ca Madina foofu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aje aj gi ñu tudde xajjatul wadaa maanaam aj goo xam ne dafa mel ne tàggu xeet wi moo ko taxoon a jóg téeméeri junni jullit ñoo ko teewee aj googu cent mille personnes téeméeri junni aj la goo xam ne def na ca xutba boo xam ne bàyyiwul dara doon na ca baamu yëpp laalli laa alqaakum baada aami hada amaana gannaaw sama at mii du ma dajewaat ak yéen kon loolu moo tax ñu tudde ko xajatul wadaa
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم